manglen ngi leen di leeralal communiqué bi nga xam ne communiqué tey 22 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat ay test yi ñu def tey ci 85 tests yi ñu def 11 ñoo positifs. positif onze manam fuk ak ben ci fuk ak ben yi juróom ben yi ay cas importé lañ juróom yi ay cas contact yo xamné suñu service yi ñu ngi leen doon suivre buñu xolé ci bésu tay Sénégal am na 67 cas yo xamné déclarer nañ leen positif ci 67 cas yoyu t'en tané nañ ci ba 62 ñoo nekk ci structure hospitalière yi ñu leen di faj ba léegi ñooñu nekk ci structure hospitalière yi muy Touba ak Dakar seen wér yaram mu ngi jëm kanam ministre bi yore war gu yaram ak action sociale mu ngi félicité di encourager personnel de santé bi nga xam ne moo ci première ligne ci xeex Covid 19 mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu continuer di wéyal topp tegtal yi nga xam ne jox nañ leen ko ci wàllum prévention individuelle ak collective maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam.